bis ni tey ci atum 2001 ci la ñu euh, delloowaat boromam euh, président Léopold Sédar Senghor le premier président euh, du Sénégal duñ ci sori bokk na ci ñiy fàttaliku tey ñaar fukki mu def ko ci biir suuf ñu def taxaw seetlu bi ak xew-xew yi amoon bis ni tey dellusiwaat léegi léegi ci plateau Infos El Hadj Amadou Diaba mennum sénégalais bu am médaille olympique gannaaw bu mu jëlee ñaareelu place bi eh, ci 400 mètres et ca Jeux olympiques yu Séoul ca Corée du Sud ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre atum 1999 ci la ñu ko def sportif du siècle ci benn cérémonie bu amoon ci Ndakaaru équipe nationale bu football bu Sénégal jël coupe Oufoué Boigny mi ngi nekkoon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre atub 1985 ci tournoi de CEDEAO la woon boobeeb tournoi boole woon Sénégal Côte d'Ivoire ak Guinée ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre atum 2020 ñetti soldat yu France faatu ca Mali ci opération Barkhane njiital république ba di bu ndaw di mettitlu jàmbaar yooyu faatu ca Guinée Bissau moom ñaareelu tour bu woteeg faluk njiitu réew ma ñi ngi ko amaloon ñaar fukki fan ak juróom-ñeent euh, ci weeru décembre atum 2019 Umaro Sissoko Embalo jëloon raw gàddu ga tey nag dañuy taxaw ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre atum 2001 bi ñuy denc Léopold Sédar sengoor ci sëkk yu Bel Air loolee gannaaw mees bu ñu amaloon ca cathédrale du souvenir africain ci teewaayu Monseigneur Théodore Adrien Sarr archevêque bu Ndakaaru ñaari taskatu xabaar yu Sud FM muy Ablaye Cissé ak Pape Diomaye Thiaxé ñoom ñoom képp ñoo doon fësal xew-xew boobu ci seeni onde kenn ci ñoom di Diomaye Thiaxé di delsiwaat ci liggéey boobu taskatu xabaar yi defoon mais dafa amoon coow lu ndaw parce que la famille dañu bëggoon bu ñuy denc Léopold Sédar Senghor ñu def ko dans la stricte vraiment euh, je ne dirais pas confidentialité mais ñu def ko ci loo xam ne daal kenn du ko fekk loolu nag ñun mënuñ ci woon ànd tout naturellement parce que on s'était dit que Léopold Sédar Senghor nekk premier président du Sénégal aura bi mu am ci réew mi ak ci àdduna lépp du woon yoon mu génn àdduna ñu koy denc famille am ne kenn war ko fekke parce que li ñu gëmoon mooy que Léopold Sédar Senghor famille am rek moomatuñ ko woon Sénégal rek moomatuñ ko woon mais àdduna bi yëpp ñoo ko bokkoon parce que patrimoine mondial la woon loolu moo taxoon kon bokk ñu ne ñun malgré le dispositif de sécurité ki a été mis en place dinañ contourner dispositif maa ngi fàttaliku jamono yooyu man ak Abdoulaye Cissé la woon Abdoulaye Cissé dafa jaar ci côté beleer bi man ma jaar ci côté Hann ci ginnaaw ak 4 x bi nga xam ne man moom la àndaloon à l'époque le chauffeur Abdourahmane Gueye certainement mi ngi ñuy seetaan à travers euh, votre plateau mu ngi jamono yi ca Italie ñu jaar ak 4 x bi ci ay yoon yu metti di dugg ak génn ba ñu egsi ci miiru cimetière yi ma yéeg ci benn garab ci peelu ci biir armee yi à partir de position bi ma nekk woon ak position bi Abdoulaye Cissé nekk woon ci lañ gis mbir mi ni mu doon déroulé wu donte nag delsuwuñu sur tous les détails de l'inhumation parce que aussi nit bu génnee àdduna dafa am sutura soo xam ne dañ ko ko war a delloo mais daal auditeurs yi à l'époque jot nañ xam dëgg-dëgg mbir yi naka la demee ba ñu denc Léopold Sédar Senghor ci këram gu mujj ca Bel Air alors euh, ñuy wax ne tamit nit ñi ñu ngi doon déglu rajo bi à l'époque mu nekkoon de grands moments de rajo mais li ci amoon solo rek mooy que à l'époque auditeurs yi sénégalais yi fépp fu ñu ci biir réew mi ak bitim réew xam dëgg-dëgg obsèques yi naka la déroulé woon donc dispositif boobu lañ tegoon mais di fàttali tamit ne depuis que Léopold Sédar Senghor delsee ci réewam àndul ak bakkanam depuis aéroport Léopold Sédar Senghor ba fi ñu ko yóbbu après yóbbu ko ci assemblée nationale sénégalais yi ñëw delloo ko njukkal pour la dernière fois ak hommage national bi nga xam ne président Abdoulaye Wade à l'époque président du Sénégal delloo na ko ko nekk à côté de son prédécesseur Abdou Diouf ba bañ koy yóbbu këram gu mujj ca Bel-Air dara dara umpul sénégalais yi loolu mooy li nga xam ne mooy li amoon solo mais tamit di wax ne ñun liñ gëmoon mooy que Léopold Sédar Senghor c'est un patrimoine mondial famiyam rek moomuñu ko woon moo taxoon ñu def loolu ñu def te bu fekkoon ne dañ ko waroon defaat aussi on allait la même chose aywa euh, président Léopold Sédar Senghor ñaar fukki at la def ci suuf euh, et puis clin d'œil à notre tout jeune doyen xam naa moom it membre la comité des sages euh, du yàgg mooy Abdoulaye Cissé ak je pense li fa xewoon. il n'est pas encore été. quelque part dans le monde là. <laughs> aywa ñu dellu si waat ci président Senghor li fa xewoon bis ni tey la woon Malick vingt ans ci ginnaaw. vingt ans ci ginnaaw moom mi ngi génnoon àdduna ñaar fukki fan ci weeru décembre. décembre ñu denc ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre euh, mu nekkoon ni tamit bëgg-bëgg bu nga xam ni moom amoon na ko famille am amoon ko muy bu mu ànd ak benn xumbute euh, bu ñu koy jébbal yàlla suñu borom loolu yi tamit respecté nañ ko moo tax ba ñaari taskati xibaar yooyu rek ñoom ñoo fa nekkoon ñu fàttali rek ni euh, ba mu jógee fi nga xam ne moo di aéroport bi ñu ko duppee yóbbu nañ ko ca cathédrale ba nga xam ne moo di cathédrale du souvenir africain monseigneur Théodore Adrien Sarr archevêque de de Dakar moom moo jiite woon mees bi mm-hmm. ba ñu fa jógee ñu yóbbu ko euh, fa nga xam ne moo di pencum ndawu réew mi waaye tamit daal di koy yóbbu ca mm-hmm. palais présidentiel garde euh, escadron monté euh, bi nga xam ne mooy garde rouge yi ñoom ñoo ko gunge mm-hmm. ñu muur ko drapo réew mi président Senghor ci teewaayu juróomi président yu nekk ci gox bi ñoom ñoo fa teewoon muy président bu Guinée équatoriale bu cap bu Mali bu Mauritanie ñoom ñoo fa nekkoon ak bu Niger ci teewaayu tamit président Abdou Diouf ñu denc ko fa. jamono yi passé yaa ngi doon dégg ci 20 décembre bi sax la jàppoon ni. dinañ ko yóbbu Joal denc ko fa. mais ba léegi loolu antoogul. aywa Chérif loolu ba léegi antoogul. waaw ñun boobaay gone lan ñu ngi doon seetaan ci télé bi fekkoon sax ñu ngi doon wàcc Coupe d'Afrique gisoon équipe nationale bi nga xamante ni Bruno Metsu moo ko jiite woon. ñoom El Hadj ñi demoon ca assemblée nationale bi nga xam fa leen exposé woon député bi ngir Abdou Diouf ñëw ci wetam ñu daal delloo ndukkal le président Léopold Sédar Senghor mais il faut retenir surtout la leçon bi nga xamante ni Pape Diomaye Diakhar joxe parce que léegi li gis moom wute nañ parce que nit ki da ngay déjà ah. volonté njaboot ki nga xam ne ñu teg ko ci jaag bi ñu foto ko dugal ko ci ah. réseaux sociaux yi voilà waaw loolu je pense que lu ci am solo la maanaam def nañ seen liggéey journaliste man te mm. euh, famille bi jaajëfal euh, bu baax euh, ñu euh, jàll ci xibaar yi ci tënk ànd ci ak Serigne Cheikh.